yi conseil constitutionnel firndeel ci décision ñuy wax ci turu candidat yooyu yëpp. li ñu yëkkati ba ñu ñëw fii tey moo di moom Macky Sall moo ngi ñuy xaar ci pale ba depuis onze heures yónnee ñu ay invitation ni dafa ñoo bëgg a recevoir nee na day recevoir dix neuf candidats yi ci dix neuf candidats yooyu fukk yi ak juróom benn bokk ci collectif bi ñuy wax FC 25 nee nañ ko du ñu wuyu ji ci invitation ndax du ñu waxtaan. ak président bo xamni respecter respecté sa constitution té ñu mën ko président hors la loi ndax ku respecté la constitution mooy respecté wuloo loi ñu ne ko jamono ñu mu ñuy xaar dañuy ñëw fi ci conseil constitutionnel pour indi fi recours bo xamni ne dañu koy conseil bi niko ñom conseil constitutionnel le 15 février dañu une décision ci décision bi ñu les autorités compétentes autorités compétentes yoyu moy ki ci jitu di Macky Sall ñu ne ko nañu jël dans les meilleurs délais mooy délais yi gën a gàtt laata le 2 avril di jot te le avril mooy bi mandat bi di jeex ci diggante boobu na ci jël jàpp app boo xam ne ci la ñuy def élection présidentielle. ñu gis ni ba ñu ko ko waxee ba tey le le 15 ba tey jii la di le 26 fukki fan ak benn président Macky Sall dafa toog jógul yënguwul yeeyu ci yàbbiwu ci waxu ci jëfu ci raw rax ci dolli ak li gën a grave bi nga xamee ni ñu ngi koy xaar mu jël délai bi. moom mu ni déedéet dana def waxtaan waxtaan woo xam ni dana ci boole candidat yi dana ci boole recola yi dana ci boole spolier yi dana ci boole communication traditionnelle yi dana ci boole ASC yi ku ko neex dugal ci ni bu loolu jeexee lay delluwaat ca conseil constitutionnel pour ñu doog a jëf wala ñu décider ñu ni ko loolu ñun du ñu jàpp ni lu méngoo la ak li conseil constitutionnel wax moo tax ñu ñëw ni conseil na jël décision ni benn ba mu joxee Macky Sall wala jox ko rafetal nañ ko sax ba niko ko donte sañ amon nañu sañ-sañ niko jëlal dat dañu ko rafetal ñom amon nañ sañ sax jëlal seen bop dat waye ñu ne ko delo nañ la cër bi defal waye comme wax nañ ko deful ñu ñew ni conseil constitutionnel constatel li ñu tuddé ci tubab carence moy ki nga jëlloon dogal matuko manuko, ne nga ko defal matuko manuko bëgg ko mu ngi tendeefal mu ngi tok di baña jëf yow mi mom kaddu gi nak yow la ñu ñaan nga jël dat nee nañu conseil constitutionnel jàppal date datu élection ndax yoon may na la ko li tax yoon may na ko ko bokk na ci moom conseil constitutionnel moo ko waxal boppam ci décision wu 15 février considérant 19 conseil constitutionnel moom moo ni nangu na ni mooy banqaas bi nekk ci réew mi boo xam ne bu réew mi jëmee ci crise ci ay jafe-jafe ci ay risques ak ay danger yoon may na ko ngir risque yooyu ñu bañ caa yegg mu jël ay ndogal jël pouvoir bi ñu ko jox ba mu mat sëkk moo tax ñu ni na jël pouvoir boobu pour jël date pour ñu dem ci élection présidentielle deuxième bi ñu ne ko ñepp xam nañu ni président Macky Sall mandam dina jeex le 2 avril te ben minute mënu ci yok te mu ngi tok deful dara jëful bëgg ñu yegg ci le 2 mu gis ni crise amna président amatu fi ñu benen président réew mi nekk ci guuta lolu mu jëm nak lañu ni la ñu ni conseil constitutionnel bala ñu ca yegg ci suñu tour ak askan wi nga xamni mom lañuy waxal nenañu conseil constitutionnel ne décider mu wax ñu yoon yi ñu wara jaar mu wax ñu loo xam ne moom la ñu war a anticiper teg ko ci ay dogal pour que réew mi du yegg ci foo xam ne fii amuñu président bu bees te président bi génn dem na moom am na ndogal boobu bokk na ci li ñu ko laaj tey mu mu anticiper wax askanu Sénégal fii ñu jëm fan la ak bu ñu ca yeggee ban dogal lay jël ak naka la ñuy def sax ba bañ caa yegg loolu mooy li nga xam ne tey yëkkati nañ ko ànd ci ak fukki candidat ak juróom benn yoo xam ne tey dañu décider devant l'histoire et devant le ñëw fii pour jëmmal loolu ci jàmm candidat yi dañu fas yéene lépp lu ñuy def ñu tënk ko ci constitution dañu jàkkaarloog président boo xam ne du respecté suñu sartu réew waaye ñun ñi dañu fas yéene lépp lu ñuy def ñu tënk ci biir constitution bi moo tax ñu ñëw laaj leen ko ñoom ñoo yor kàddu gi ñoo yor baat bi ñoo yor pouvoir bi pour que bu exécutif jëful législatif jëlul responsabilité ñoom la judiciaire ñuy beneen bànqaas bi nga xam ni dina dina équilibré réew mi et dina jox sénégalais yi seen àq. par rapport ak seen dialogue bi.